sun diggante wa baynakum ak seen diggante lii ñeel na ma xamal yi sama jëf wala kum ñeel na leen xamalukum seen jëf antum yéen bari oona way set ngeen mi maa ci li nga xam ne amalu danaa ko jëf wa anaate man bari un aji set la mi maa ci la nga xam ne ta amaloona da ngeen ko jëf nee na ba sëñ bi nekkee gànnaar laaya ji suñ boroom waxanteeg moom mooy neel yéefar yi dàggenteeg xuloo du am suñ diggante nekk leen ci li ngeen nekk ma nekk ci li ma nekk jotiwu ma ak yéen dara ndax yàlla mi ma gëm yéen gëmu leen ko jotiwu leen ak man dara ndax seenu bokkaaleeg seenu kàccoor doonuma ca dara kon daal doonuma ci yéen dara yéen it doon leen ci man dara set ngeen ci man wecc ma set ci yéen wecc wa maxallu jolof bérébu jolof nag moom fa mastaqaamoo li fekk sax nañu ca kolëre ga lakum ñeel leen fastaqimoo na ngeen sax ca kolëre ga lahum ñeel leen ñoom it bi sëñ bi ñëwee jolof te mooy foofu ci ceyeen daa fekk laata muy ñëw nee nañu Cheikh Ibra Fall yal na ko yàlla dolli ngërëm ak leer mu doon wàqanteeg tubaab yi ci mbirum sëriñ bi ba mujj ñu nangul ko sëñ bi dellu siwaat ci biir réew mi te nekk foofu ci béréb bu jolof foofu ci ceyeen sunu boroom nag waxanteeg sëñ bi ne ko loolee ñu wax ak sa noon yi bañ nanga laa indi foofu nga féeti foofu ci jolof li fekk noon yi ña ngay jàpp ca wax joojee yow itam jàppal ca loola rek te di ma déglu ba xam wa maxallu jolof bérébu jolof ilal buqaati ba ci pàkk ba almubaarakati ba di buñ barkeel xasallaahu ndaxalee yàlla an yajxala mu def baynakum seen diggante wa bayna lazina ak diggante ñi nga xam ne xaadaytum noonoon te ngeen minhum ci ñoom mawaddatan cofeel bi sëñ bi bàyyi ko jolof nag wut si njaareem googu suñ borom ne ko ah ñoom ñi nga xam ne ñoo la bañ jàppale ay noon yàlla mën naa wëlbati seeni xol ñu wëlbatiku sopp la ndax sëñ bi moom du noonoon te kenn ambalul kenn ak noonoo jàppul ne liñ koy def ñoo ko def day jàpp ne lépp rek yàlla wa maxalul buqxati béréb bu pàkk ba almubaarakati ba di buñ barkeel lañ ko fa waxanteeg moom mooy lakkum ñeel na leen diinukum seen diine waliye te ñeel na ma diini sama diine mbaa boog lakkum ñeel na leen diinukum seenuk weddi ak seenuk mooy waliye ñeel na ma diini sama tawxiit ak sama sellal fa xooloo wax leen ne ishadoo seere leen bi ànd naa ci naka nun muslimoona way jébbal leen yàlla sunu lépp bi sëñ bi ñëwee ba njaareem nag yàlla ne ko nee leen nekk leen ci li ngeen nekk muy weddeeg mooy man ma sax ci li ma nekk muy gëm ak topp seere leen ni nun dey jox nañ suñu borom lépp lépp te doonu ca deltu gannaaw mukk mukk mukk kon loolu mooy laay yi nga xam ne ci alxuraan la bokk ñu wàqante ko sëriñ bi ci ay waxtu waxtu ak béréb béréb yoo xam ne yu wuute wuute la wa qaala waxoon na acheikhu alqadimu aydan li yaalam na xam kullu man képp koo xam ne taallaqa ajuna biyee ci man ne àndoon ni naka man tawajjahtu jublu naa ilallah jëm ci yàlla taala kawe na bi tawaalifa ci ay taalif takkoonu nag moo fi nekk waaye yakkoonu moo gën a yàllu ci zahir si waaye li nag moom mel ne ne sëñ bee ko bindal boppam bu fekkee ne du yax yee ci juum bindee ko takkoonu kon xëy na sëñ bee ko defal takkoonu boppam nu bàyyi ko noonu bu fekkee nag bind bindkat yi ñoo ci juum rek ñu def ko yakkoonu dana nekk fiihaa ci ñoom naful muslimina njariñal jullit yu góor yi wala muslimaati ak jullit yu jigéen yi fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak alaxira wa anna jamihama ak naka mboolem la nga xam ne katabtuhoo bind naa ko fii xaybati ci sama tukki bi albahriyati bay ko juggéej xidmatun ak lëggéeyal la li rasulillahi ñal yonante yàlla bi sallalla salla yan dool tedd nga allahu yàlla taxalaa kawe na alayhi ci moom wa sallama tem dooli ko wóolu wa baraka tem dooli ko barke wa zikrun te zikkar la wa shukurun te ak cant la wa jihaadun te jihaad la laa xayru du leneen wali zalika ngir loolu manaxtu aaye naa mi naqlihi ci toxalam wa satartuhu te ma suturaal ko wa annama ak naka la nga xam ne qablaha nekk na ci seenu njëkk minal makaati bi ci ñu bind falam yuqbal nangoo fut min hu ci moom shay'un dara wa man araada ku bëgg ay yantafi xam mu jariñu fi dunya ci àdduna wal axirati ak alaxira falee ji taxit na farlu fii maa ca la nga xam ne katabtu bind naa ko fii baqiyati mukk si ci li des ci samak sax xaama shahidina bi karamin ci atum shahidina bi karam fatilkal makaatibu yoo yële mbind faaxat kawe nañu mu xayral quraan yi lu dul al quraan wal xadis ak xadis xataxan ci lu dog wala xaata ñeel na leen barakatun barke xazimatun bi aji màgg lam takkun bu nekkul fii xëyrihaa ci lu ñoom minat tawaali fi ci taalif yi sëñ bi ne képp koo xam ne danga jàppandu ci man na nga xam ne dëgmal naa yàlla bëgg a def ay taalif yoo xam ne day nekk njariñal mboolem jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi ci àdduna ak ci àllaaxira waaye nag bëgg naa képp ku aju ci man mu wóor ko ne daal la ma taalife ca tukkib géej ga moom ab liggéey la rek bu ma liggéeyal yonante bi ak sikkar ak sant ak jihar rek du leneen moo tax loolu bu ma sañoon kenn du ko sottiwaat ndax daa ko suturaal bëgguma sax kenn gis ko te it la ma taalifoon njëkk may dem ca géej ga nanguwuñ ca dara noonu la ko waxee fii nag waaye mujjaat na wax ne yàlla nangu na loolee lépp yëkkati ko ba fam ko war a yóbbu mu yóbbu ko fa booy jàng sax nuuru daare ni da nga gis mu bind xabiltali min asashin li bal sashi munabbihan fi daaka xaama la sashi nangul nga ma la tàmbalee atum asas muy 1301 ba ci atum balsas muy 1332 tegtal la ci ne kon gannaaw ba lee nangu nañ ko ba bind na ko noonu mu ko waxee ne yàlla nangu na ko ba yëkkati ko lam daane la nag mooy ku bëgg a jariñu àdduna ak alaaxira na farlu ci li nga xam ne moom laa bind ci tàmbalee ci at mii muy 1322 xaama shahid naa bi karam mooy baksas li dale foofu daal ba kere may génn àdduna moom li ma fi bind ku bëgg a jariñu àdduna ak alaxira na ca farlu bu baax a baax ndax loolu ma fi bind moo féete kaw lépp lu bokkut ak alquran ak hadis te yàlla def na ci barke bu rëy rëy boo xam ne defu ko ci sama yeneen taalif yi wa qaala aydan sëñ bi nee na woon ida arata ndem bëgg nga an tatluwa nga jàng alquran alquran fan wi yéeneel xorooj ak sa génn min kullimaa ci lépp loo xam ne lam yaxtarahu tànnu ko allahu yàlla taala kawe na lakka ñeel la wa duxoo la ko ak sa dugg fii kullimaa ci lépp loo xam ne ixtaarahoo tànn na ko allahu yàlla taala kawe na lakka ñeel la wan wi te nga yéene xinda qiraati xasiidatin fa jàng ak xasiida min xasaayid yi ci sama xasaayid yi maashi ita la nga bëgg fa innaka naka yow tajiduhu danga ko am incha allahu taala ndem soob na yàlla in kaana ndem nekk na mimma di bokk ci li nga xam ne xultuhoo wax naa ko ba ada xorooj yi gannaaw sama génn min jolof bàyyi ko jolof aw xultuhoo mbaa ma wax ko fii tilka sanati ci moomee at xablal xorooj yi njëkk génn ga wa amal xasaayidu ndaal xasiida ya allati ya nga xam ne xablahaa nekk na seenu njëkk falaa déedéet sëñ bi dane woon boo bëggee jàngal quran da nga ci yéene yàlla génne la ci lépp loo xam ne tànn lu la ko te dugal la ci lépp lam la tànnal nee na nag booy jàng genn xasida ci sama xasaayit yi sa ye boo yéene ca loo bëgg rek da nga ko am incha allah waaye nag na fekk xasida ga bokk ci li nga xam ne maa ngi ko taalif gannaaw ba ma génnee jolof di wuy ji tubaab yi mbaa boog ca at moomee njëkk may génn bàyyi ko jolof di wuy ji daal at moomee daal muy atum jay sos at moomee di atum jayses daal lu ma ca taalif mbaa lu mu taalif ci gannaaw ba ci xasida yi boo ci jàng rek saye boo yéene ca la nga bëgg da nga ko am la jiitu woon loola nag moom nee na déedéet boo ci yéene la nga bëgg itam doo ko am waaye nag waxoon nañ léegi ne la daa waxan ne la jiitu muy dem ci géej gi yàlla nanguwu ko waaye gannaaw bi nag nee nañ la wax na ci nooru daara yi ni ne yàlla nangu na ko ba noppi xamal ko ne ko nangu naa ko wan wi na nga yéene xindabti daay wirdi fa tàmbali wirdu wa an yan faxaka mu jariñ la allahu yàlla taxala kawe na fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak alaxira bila dararin ci lut lor fii ximaaj ñoom ñaar maxal xur bi ànd jege ga minhu ci yàlla taxala kawe na wa min rasool yi ak ci yonanteem ba alayhi yàlla na doole nekk ci moom assalaatu dooli teral wasalaam ak dooli wóolu xurban ak jege yan faamu ka boog dalay jëriñ wala yadurru ka te du la lor nee na boo bëgg a tàmbalee wird da nga ci yéene yàlla jëriñ la ci àdduna ak alaxira njëriñ lu àndut ak daray lor te may la nga jege ko jege yonanteem ba sallallahu taala alayhi wa sallam jege goo xam ne dalay jëriñ te du la lor wan wi te nga yéene xindar rawaati bi fa rawaati bi ya ixyaa sunnati rasulillahi dundal sunnas yonante bi yàlla ba sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam waqra te nga jàng maash ita lala soob mina suwari ca saar ya alqisaar ya di way gàtt nee na xeeti naafile yi nga xam ne ñoo dend ak julli farata yi boo leen dee julli da nga ci yéenee dundal sunnas yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saar yoo jàng rek nag baax na mën ngaa jàng ci saar yu gàtt yi am na sax yu mu lay tegtal ci xeeti ay saara ki laaya yoo xam ne booy julli julli yooyu moom nga ci jàng dina ñëw ca kanam wa qaala aydan sëñ bi nee na woon assalaamatu mucc wal xaafiyatu ak jàmm fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak alaxira tatawalla daani danañu juddoo min niyat xayri ci yéene aw yiw wa qawlil xayri ak wax aw yiw wa fi'lil xayri ak def aw yiw wa mulaasamatil xayri ak taqoonteeku yiw waxat jamaatu te boole naa leen wala waxat jumiat te booleef na leen fii baytin ci aw bayit waahid nu di wenn te mooy in wi yéeneel waxul te nga wax wafxal te nga def wala sim te nga taqoo taslam kon nga mucc mukarraman mbir mu ngay ku ñu teral rum na nga sàkkoo alxulaa kaweye bi kalimi ci sama baat yi sëñ bi nee na woon mucc ak jàmm ku ko bëgg ci àdduna ak àllaaxira xamal ne yaa ngi koy amee ci nii mooy sax ci yéene aw yiw ak sax ci wax ak yiw ak sax ci def aw yiw te bañ a bàyyi kon daal nee na yéene aw yiw wax aw yiw def aw yiw te bañ a bàyyi ci la ñuy amee ci la ñuy amee mucc ak jàmm ci àdduna ak àllaaxira sëñ bi nag ne boole naa yooyu yëpp nag ci wenn way ma in wi waqul wafxal walazim taslami mukarraman romil wula bi kalimi mooy yéeneel aw yiw wax aw yiw def aw yiw taqooku yiw kon na nga mucc ñu teral la ci àdduna ak alaxira kon nag boo bëggee mucc ak jàmm ak teraanga ci àdduna ak alaxira sàkkoo ko ci baat yi nga xam ne moom laa la tuddal muy in wi waqul wafxal walazim bismillahi irrahmani irrahim allahumma yow buur bi salli yàlla na nga dolli tedd nga wa sallim te yàlla na nga dolli wóolu wa barik te yàlla na nga dolli barke xalaaman ci ka nga xam ne udina digaleef na lii ñeel ma fi an aqula ci ma wax abyaatan ay bayit fi waahidin ci kenn min aali baytihi ci ñooñ néegam ba te a cheikhi abil hasan mooy cheikh abil hasan assaadili kama madaxtu ni ma tagge woon acheikha abdal qadir aljiliya wa cheikha ahmad tijaniya xalal jamihi yàlla nekk ci mboole seen ridwanullahi ngërëmul yàlla tabaraka barkeel na wa taala te mu kawe sayidina te mooy sunu sang wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin te mooy muhammad wa alihi ak ñoñam wa sahabi ak ay sahabaam sunu boroom yàlla na nga dolli teraanga ak jàmm ak barke sang bi nga xam ne danga ma digal ma wax ay bayit ci kenn ci ku bokk ci ab néegam bokk ci sëtam te mooy cheikh abul hasan assadili nee nga ma naa ko tagg ci ay bayit ni nga xam ne moom laa tagge woon cheikh abdul xaadir ak cheikh ahmed tidiane mu ne ñoom ñëpp nag yal na yàlla dool leen gërëm dafa yéex a tudd nag tur yorante bi mooy sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi bayit yaa ngi nii ridallahi ngërëmul yàlla xan cheikhin yàlla nekk ci ab sëriñ xadaa boobu xëy na xayra ba waabin di ngën ji ab bëkk néeg abil xasan te mooy abil xasan alfardi kay kenn alxali kay aji kawe xinda tawwaabin fa ab jégalekat te mooy yàlla yàlla na yàlla dolli ngërëm cheikh abul xasan mi nga xam ne kenn la ku kawe kawe fa yàlla te mel ni daa wëlbatiku di bëkk néegu yonent bi di bunt buy àggalee ca yonante baak ca boroomam huwa moom alfardu mooy kenn ka xindallaahi fa yàlla maar yi aji seefut misluhoo am kemam ku mel ne moom xad jaa nii dikkal na ma xayru aswaabin gën ji ay malaan bi awraadihi ci ay wirdam abul xasan mi la wax ne kenn la ku ñàkk moroom fa yàlla boroomam mu ne nag wirdam yi ci la ma yàlla maye ngën ji mbalaan maanaam nag mu jublu ci mbalaanum baatin moo xam ne moo ko xam waaye daal daa mel ne atwaab moom ay malaan mooy pirim zahiram bu fekkee sëñ bi jublu ci meneen mu bokkut ak moomu laqad laama nii yedd na ma almuxtaaru kañu tànn fii tarki zikri yi ci bàyyi tuddam ga bi mat yi ci samak tagg la ñeel ko iddi ngir wirdu hoo wirdam wa saara mujj na jilbaa bii di sama manto nee na yonent bi yedd na ma ne ma waaw yow day abul xasan moom ba tey rek dégguma nga tagg ko te mu ne moom kat wirdam wi sax soppiku na sama malaanum sutura ba noppi nag tëgguma ko moo tax yonent bi ne ma lu tax tëggoo ko ni nga taggee ñaar ñële alayhi yàlla nekk ci moom rida haadin ngërëmal aji jubal hadaani kook jubal na ma bi wirdi ci ca wirdam wa wa fuqtu te ma kawee bi ci moom hinda nabi fa yonante bi kulla ahbaabin yépp soppe yàlla na yàlla dolli ngërëm abul xasan mii nga xam ne wirdam wi ci la ma yàlla gindee te wirdam wi tax na sax ma kawe soppe yu baree bari fa yonante bi wirdam wi tax na soppe yonante bi yu baree bari maa leen féete kaw la xad jaa nii dikkal na ma li sawri ngir siyaare xisbul xali kuréelub yàlla mi aji kawe la daa julloo si fa samak toog bi aw raadin ci ay wird jalaa feeñ na moom borom wird wi xayra bawaabin mbir mu mi ngën ci ab bunt nee na baa toogee yore wirdu seex abul xasan moomu day la kuréelub yàlla ñëw di ma siyaare si te wane ne kon wirdu seex abul xasan woowule wirdu màgg laa màgg xikmatun lii xikma la baalixatun bi aji dem dayo xaalaxaa bu wax na ko a cheikhu alqadiyum cheikh ahmad bamba ne laa toxtoo bu leen jox xasanaatikum seeni yiw li ahadin ñel kenn mina saalihina ci way baax ñi wala tataxammaloo te bu leen yanu sayiaati ahadin ñaawtee fi kenn minal musiina ci way ñaawal ñi wa man xaaba ku sikkal ahadan kenn mina saalihina ci way baax yi uxi sa kon jàppeef maanaam kon jëleef maa la nga xam ne lëxoo ñeeloon na ko minal xasanaati ci ay yiw lëxoo ñeel ku baax kookee wa man zalama ku tooñ ahadan kenn minal musiina ci way ñaawal ñi faqad taxammala kon yanu na xan walis ko xan sayiaati yi walis ay ñaawteefam waaye daa mel nag bu fekkee du sëñ bi ci boppam moo ko def manes naa jàng faqad taxammala kon yanu na sayiaat yi ay ñaawteefam xan walis ko sëñ bi nee na woon na ngeen moytu def lu baax ba noppi ñu foqarcee ko ci yéen jox ko ku baax na ngeen moytu itam fekk waaju bon ngeen di ko gàddul ay bon bonam lay loola moo di nee na waaju baax boo ko sikkalee dañuy fab la nga defan ci lu baax jox ko ku baax kookee nga sikkal te waroo ko woon a sikkal ku bon ki nag moom nee na boo ko tooñee dañuy jël ay ñaawteefam xëpp la ko ndax tooñ ga nga ko tooñ nga xam ne kon daal danga war a maandu bu baax ci ku baax ak ci ku bon ku baax bul wax ci moom dara lu may lu baax ku bon itam dee ko ñaanal rek ak baax te bañ koo sikkal mukk-mukk ndax ku baax ki moom boo waxee ci moom dara ñu jël la nga baaxle woon jox ko ku bon ki boo waxee ci moom dara loo warta wax ñu fab lu bonam sëf la ko wa qaala aydan alqalbu xol bi ida jaala ndee wëndeelu na fii malakooti rabbihi ci nguurug biirug boroomam gi rajaxa kon mu di xuyoo bi ànd ak ay kumpa wa ida jaala ndee wëndeelu na fil maxaarimi ci yu araam ya wal makruhi ak lañu sib rajaxa mu dellu si bil xuyoo bi ànd ki sikk wasalaam sëñ bi nee na woon xol li ci ëpp rek day wëndeelu waaye na nga seet nag fa muy wëndeelu bu dee wëndeelu di xalaat ci nguuru yàlla gu làqu gi kon day dellu si ànd ki kumpa mooy yàlla da koy may moom xol bi mu xam xam-xami kumpa waaye nag bu xol bi dee wëndeelu ci lu araam ba lu ñu sib day dellu si rek ak i sikk mooy day gën a sikk rek moom xol bi gën a tilim wa qaala aydan annaasu nit ñi xalaa salaasati aqsaamin nekk nañ ci ñetti xaaj zakiyun aji ñaw wa majnuunun akub dof waxabiyun ak aji réer mooy ku yembadi ama dëkk yu daal aji ñaw ja fam woo moom allësi mooy ka nga xam ne yabiox dana jaay aljawhara wurus bi an fasa ci lu gën a foor li annahoo ngir naka moom yàqul day wax alxayra yiwa bi lisaanihi ci làmmiñam aw yes mutu wala mu noppi wa amal majnoonu daal ab dof fa huwa moom allësi mooy ka nga xam ne yabiox dana jaay aljawhara wurus bil jamrati ci aw xal awil xayyati wala jaan awil xaqrabi wala jiit li ànnahu ngir naka moom yattulu ko day bàyyi kalaamal xayri wax yiw aw zikrillaahi wala turu yàlla wala tudd yàlla wa yaquulu te muy wax alxabiix aji bon wal xiibat ak jëw war razail ak i caay-caay wa amal xabiyu daal aji réer ja ku yambadika fa huwa moom allësi mooy ka nga xam ne yabiixu dana jaay aljawhara wurus wa bi ramaadi ci ab doom aw bi turaa bi wala ci suuf awil xiraxi wala ay sagar albaaliyat yu aj ràpp aw bil xashish wala ci ab boob muy am ñax li ànnahu ngir naka moom yettulu ko day bàyyi kalaamal xayri wax aw yiw wa yaqul te muy wax allaxwa caaxaan wama ak la nga xam ne laa faida sa déet njariñ fii muy nekk ci moom mu ne sëñ bi nee na woon nit ñi ñetti xaaj lañu ku yeewu lool ak ku dofe lool ak ku yemba di nekk ci diggante bi ki yeewu lool mooy ki nga xam ne day wax lu baax mbaa mu tudd yàlla mbaa mu noppi kooku mel na ne ku jaay wurus ñu fay la ci njëggu gën a foor wurus ku dofee ki nag mooy ki nga xam ne mën naa wax lu baax mbaa tudd yàlla mu bàyyi ko nag di wax lu araam loo xam ne lu bon lay doon mbaa jëw ak xeeti caay-caay yi nga xam ne kon day mel ne daayul wurus dem jaay ko ñu fayee ko njëg goo xam ne weesuut ay xali sawara ak i jaan ak i jiit ndax xam nga ne mën naa wax lu baax am ci tuyaaba mu bàyyi ko wax lu araam luy indi bàkkaar kon moo ku yor wurus dem joxe ko ñu jox la ay xal ak i jaan ak i jiit ñooy ma dong ku yembadi ki nag nee na mooy ki nga xam ne wurus wa mu yor di ko jaay da ko nangoo jaay njëg goo xam ne amul njariñ bu fekkee du kolorit amul ko benn njariñ ndax mooy ab doom lañ ko ci faye ndax moom daay wurus dem joxe wurus wa ñu jox ko ab doom wala suuf wala sagar yu màggat wala ab boob am ñax kooku nag mooy ki nga xam ne mën naa wax lu baax mu bàyyi ko di wax waxi caaxaan ak loo xam ne ni amul njariñ nga xam ne bu fekkee amul bàkkaar itam deesu ko ca bindal tuyaaba kooku mi ngi mel ne ku yor wurus dem jaay ko njëggañ koy fay doon rek ab dóom ak suuf ak ay sagar ak am ñax rek wa man tawajjaha ku jublu ilallahi jëm ci yàlla tabaraka barkeel na wa taxalaate mu kawe wajjaha mu jëmale moom yàlla ilayhi jëm ci moom kulla xayrin wépp yow wa man tawajjaha ku jublu ilaa xayrillaahi jëm ci kurul yàlla tabaaraka barkeel na wa taxalaa te mu kawe tawajjaha kun jublu ilayhi jëm ci moom kullu dayrin jëpp lor sëñ bi nee na ku dëgmal yàlla yàlla jëmale ci moom lépp lu baax ku dëgmal lu bokkut ak yàlla nag lépp luy ay ak lor wëlbati ku dëgmal si la wa kayfiyatu tawajjuhi melaw jublu ga illallah jëm ci yàlla tabaaraka barkeel na wa taala te mu kawe talabu wasilatin mooy sàkku wasila ilahi jëm ci moom yoo xarrifuka boobu dana la xamal maa la nga xam ne tafxalu danga ko def wa maag la nga xam ne laa tafxalu doo ko def fa inna fi imtisaalil awaamiri naka ci topp ndigal ya wajitinaa bi nawaahi ak moytu tere ya tuqbilu lay dëgmal ilayka jëm ci yow almuwasilaatu way àggale ya ilayhi jëm ci yàlla tabaaraka barkeel na wa taxala te mu kawe wa tudbiru tey wan gannaaw ilaa xayrika jëm ci kudul yow alxawaa'iqu way gàllankoore ya almaanihaatu ya di way fege mooy ya di way tere wasalaam sëñ bi ne ni ngay jubloo ci sa boroom nag mooy su fekkee mën ngaa am sëriñ bu mat ab sëriñ da ngay dem ci moom wéeru ci moom bu ko defee moo lay xamal la nga war a def ak la nga wërta def moo lay tegtal la ngay def ba mëne ak sa boroom tegtal la la nga war a moytu ndax moo lay tee mëneek sa boroom ndax nee na jëfi ndigal bàyyi tere boo ko defee rek dëgmal nga sa boroom te bu boobaa lu baax da lay dëgmal si lépp li gàllankoore dal lay sori waaye nag boo mënee am sëriñ boo xam ne daal moom moo lay tegtal yoonu yàlla moo cay gën a gaaw wa qaala aydan alxilmu xam-xam xalaa qismay ni nekk na ci ñaari xaaj maa xam-xam boo xam ne yan fa amkat na la jëriñ fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak alaxira wa maa xam-xam boo xam ne laa yan fa amkat du la jëriñ fi duniyaa ci àdduna wala fil axirati du jaageenu ci alaxira amal la siin daal ba nga xam ne yan fa amkat na la jëriñ fi daari ni ci yaari kër yi fa huwa moom allasi mooy la nga xam ne xaalim taxoo xam nga ko minal xayri ci yiw wa faal taxoo te nga def ko li wàcc ci laax ngir jëmi yàlla tabaaraka barkeel na wa taala te mu kawe wala si ak la nga xam ne xaalim taxoo xam nga ko mina charri ci ay watrak taxoo te nga bàyyi ko li wàcc ci laax ngir jëmi yàlla tabaaraka barkeel na wa taala te mu kawe fa isa xaraja ndéem mi ngi génn al insaanu nit mina dunia tukkee ci àdduna laa yu saaxibu fa du àndaaleeg moom wala yu raafiqu fa te du àndanteeg moom illa haazani ndara yi la yaar wa maa xamile la mu jëfoon neel xayri ci yiw yu duxiluhu dana ko duwal aljanata ajana wa maa tarak la mu bàyyi woon mina charri ci ay yoon jiyee dana ko musal mina naari ci sawara ne sëñ bi nee na woon xam-xam ñaari xaaj la xam-xam bu lay jëriñ ci àdduna ak alaxira ak xam-xam boo xam ne du la jëriñ ci àdduna du la jëriñ ci alaxira xam-xam bi lay jëriñ ci àdduna ak alaxira mooy la nga xam ci lu baax te def ko ak la nga xam ca lu bon te moytu ko nee na ñaari xam-xam ñi boo dee génn àdduna ñoom képp-képp ñooy ànd ak yow la nga xaman ci lu baax te def ko moo lay dugal àjjana la nga xaman ca safaan ba te moytu ko moo lay musal ca sawara wa amma xayru haadayni l madkurayni ndaa lu dul yile yaar yi ñu tudd minal xulóomi ci xam-xam yi fa yaxruju day génn min hutukkee ci moom jaam bi ilal kutubi jëm ci téere ya wa min ha ak bàyyikoo ci téere ya ilal quraan jëm ci alquran wa minhu ak bàyyikoo ci alquran ilal lawxil mahfuuzi jëm ci allawxul mahfuuz wa haza lii huwa moom alxilm mooy xam-xam ba an naafihu bay aj jëriñ almutabaru ba di buñ xalam fii kitaabihi ci téeréem ba almadkooru ba di buñ tudd fii xawlihi ci wax yàlla ji taxalaa yonante bi waxul waxal ne rab yow sama boroom ci dini yàlla nag ma dolli xel man xam-xam tam lu baree bari min fi atin ci ab kuréel xalilatin bi aji néew xalabat not na fi atan kuréel kasiratan bi aji bari bi isnillahi ci nameelu yàlla maa la nga xam ne ixtaarahoo tànn na ko al muxtaaru aji tànn ja lil muxtaar yi ñel ka ñu tànn fa huwa moom al muxtaaru mooy la ñu tànn minal asiyaay ci yëf ya te ay li mu ci namm alxilm mooy xam-xam an naafiyu bay aji jariñ gannaaw bi mu la ràññeelee ñaari xam-xam yi nga xam ni moo am njariñ te mooy la nga xam ci lu baax te di ko def ak la nga xam ci safaan ba te di ko moytu leen lu bokk te yooyu yaar ci xeeti xam-xam yi bu nit dee génn àdduna dara du ca ànd ak moom ndax lu mu xamante bokk te yooyu yaar day bàyyi ko ca moom dem ca téere ya bàyyi ko waat ca téere ya dellu ci alquran génnaate ci alquran dellu ci allahul mahfuz kon nee na boo déggee su borom di wax yonante bi naa ko ñaanal ma dolli la xam-xam xam-xam bu am njariñ bee tax muy wax kon nag yàlla mi nga xam ne mooy tànn moo tànn yonante bi lu mu tànnal yonante bi rek nag loolaa am njariñ te loolu mooy xam-xam bu am njariñ baatub almuxtaar day firi aji coobarewu bu delloo ci yàlla ba tey di firi muxtaar ku ñu tànn dellu ci yonante bi mbaa leneen lu ñu tànn ba tey dana doon muxtaar wa min fuyudaatihi bokk na ci ay mayam yu baawaan wala xam-xamam yu bëbb yu baawaan yi radiyallahu anhu wa ardaahu xanna amin mu ne xoloomul